ma tawfiqi illa billah alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa mawlana muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwani waljah wa ala xayri xadimihi cheikhna muhammadin ibni muhammadin ibni habibillah asadahu llahu taala wa shakara xidmatahu wa tawallah mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi yëkkati suñu nuyoo ak suñu ziyaar bu gën a tedd di ko jaarale ci Maolana Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan suñu borom gën ko fi yàggal te gën koo wéral mu ànd ak ñun lu yàgg yàgg yàgg yàgg di ndokkeelaat bu baax a baax mbooloo mi nga xam ne ñooy topp jotaay bii nii bi koor gi tàmbalee ba négani si ñu yees daal suñu ndokkeel ci koor gi di ñaan suñu borom nangu ñu li weesu te doole ñu kàttan ba li des ñu man koo defee ni mu ko bëggee barkeb Cheikh Ahmadul Xadim niñ ko baaxoo defee daayira Muxaddamatul Xidma ngoon bu jot ci koor gi mu tànn benn mawdoo ànd ko kenn ci borom xam-xam yi ni ngeen ko xamee tey ñu ànd ceeg Serigne Chérif Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Fadel euh, ci tomb boo xamante ni bu soxal jamono la bu ñu war a ittewoo la bu ñu war a yee nit ñi la ñu gën a xam valeuram dëgg-dëgg muy euh, suñu warteef ci ndonol Serigne bi wala boog warteef bi nga xam ne moom la am ci li nga xam ne moom la ñu sëriñ bàyyil ñu mën koo wooyee ndono euh, sëriñ sëriñ mi koy def nekk koo xam ne ku ñu miin la ci ay yëngoom ci wàll googu noonu ndax euh, ginnaaw am jàngam euh, niñ ko xamee ci fànn yu mel nii alquran ginnaaw bi jàng xam-xam ci kër yu mag yi ñu miin ci dëkk ci daara yu mag yi mu yeggale njàngam fële ca Caire ba noppi jóge fa dem fële ca Sorbonne Paris jànge fa te wàll yëpp it ci domaine bu mel nii la yoon doon ci wàllum turas maanaam dono ak nees koy sàmmee wala boog ci wàllum civilisation wala yu ni mel nga xam ne booleem fi mu dem fa yëpp yam fay jàng day mën a duggante ak mawdon bi nga xam ne moom lañ ko jox moo ñu ko defal ñaan suñ borom defal ko ci tawfiq bu baax a baax a baax solo thème bi nag euh, bokk na ci rek nga xam ne euh, pour tey jii jàkk faaw ñu dellu ci démb maanaam ci démb lañ mën a sukkandiku ngir am tey ju jag kon nit ku nekk war naa mën a fexe ba xam démbam waaye bu ko xamee it xam ni koy ni mu ko war a sàmmee kon sëriñ bi bismillah tàmbalee suñuy kàddu ci di kilifa yoon wi muy Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan suñu boroom yàggal ko fi te mottali li ko ay mébétam ak yeneen di nuyu itam mbokk yi fi teew yépp waaye di ci jiital waa daaira muxaddamatul xidma ci njiitul suñu mbokk suñu xarit suñu wëlëre sëriñ Afia Bousso di wax ne lii doon sama warteef man ndax man yàlla dafa dogal dañ ma faye bor ci jumaa ji jumaa ji dañ ma cee faye bor ndax ni mu demee mooy ki ñu ma tudde wax nañ ne bi ñuy wax jumaa ji am na jamono ñu soxla lool téeméeri junni mu xawoon a jafe ci yooyu jamono mu yónnee ko ne nañ ko ko defal ci liggéeyu Sëriñ yi bi soreewul ak jamono yi ma gënee àdduna ñu duppee ma ko muy Chérif Fanta Madi dëkk ca Kankan Guinée ragal naa ne la doole ci tax ci la tax ñu tudde ma ko kon jëf jooje la woon kon jàpp naa ne daayira bi waxuma bokk ci waaye dama waroon a ñëw sax yéen di leen liggéeyal ndax ku def ci jumaa ji kon man nga jàppale ndax man ni ma ko waxee dañ ma faye bor ci jumaa ji kon mu mel ni di nuyu itam euh, njabootug sëñ Tuubaa gi fi ne lépp jëpp di nuyu sëriñ Gana Messere moom it ñëw na fi léegi di ko xam ne taxawaayam rafet na lool ci yoon wi ci ak leeral luy tax nu gën a xam sëriñ bi ba mën koo gën a lëggéeyal kon sëñ Gana ñi ngi lay nuyoo tam te la ndokkeel ak bokk yi fi teew yëpp ñu ma tudd ak ñu ma tuddul euh, ñu tànnoon nag mawdu tudde ko waajibuna tijaaha ak turaasil xadimi lan mooy sunu warteef ci sàmm ndono li nga xam ne moom la fi sëriñ bi bàyyi defe naa loolu moo doon unwaan waxtaan wi mu mel ni turaas kon waxtaan wi day seddalikoo ci ñetti pàcc bi ci jiitu ñu jéem a xam lan mooy turaas bi ci topp ñu xam lan moo ci taxawaayu yoonu murit bi ci topp nag ñu ñëw ci li nga xam ne moom la unwaan bi wundu te mooy la ñuy nu ñuy def nag ba sàmm kon ci ñetti poñ yooyu ci la waxtaan wi ci tëdd incha allah mu mel ne euh, taarif bi ci àdduna si joxe nga xam ne ñëpp juboo nañ ci te munazamat al UNESCO def ko nga xam ne daa bokk ci mbootaay gi lëkkale xeeti àdduna bépp waaye ñu féetale ko wàllu xam-xam ak aada ak cosaan ak gëstu ñoom ñoo seddale ñoo def taarif boobu mooy séddale turaas ci juróom-ñetti pàcc bokk na ca wàllu diine ñoom nag diine bu ñu ko waxee mooy kuy jaamu ak lu mën a jaamu rek diine lañ ko tudde kon danañ wax li nu wutaleek ñoom ci kanam tuuti booboo ci jëkk ba ca topp mooy at tabi'i mooy ndono li nga xam ne fekk nañ ko fi muy ay melokaan yoo xam ne loxo doomu aadama néewu ca mbirum suñu borom la ba mu ca noppee lañ ca la ca loxo gëj ak tulaasu tabiya yi mooy kon bu ñaareel bi danañ ñëw gën koo firim fàcc ci kanam incha allah bu ñetteel bi mooy ak turaas mooy wàllu xam-xam ci wàllu aada ak cosaan boobu moom lañ def mu nekk ci ñetteelu tomb bi ba ca topp nekk ci ñeenteelu tomb mooy ak turaas al lugawi mooy lu jëm ci wàllu wax ak làkk boobu mooy bu ñeenteel bi bu juróom-ñett bu juróomeel bi mooy ak turaas al ilmi waaye ñu jublu ci ndonal xam-xam waaye ndonal xam-xam liñ namm fi ñoom mooy xam-xam boo xam ne mën ngaa boole ci yi nga fekk ci àdduna ay xeet yu bokkul ba mu indil la natiija ba mu jur dara loo xam ne mënees na ko jariñoo ñoom xam-xam boobu la wax fii daañ ci ñëw ci kanam insha allah bu juróom-benneel bi mooy aturaas al lu jëm ci wàllum bind ak taalif mooy juróom-benneel bu juróom bi mooy al xadaar yi te xaw naa nuróog lool ak saqaaf waaye am nañu wuute loolu it mooy dañu ñu donne woon ci démb te saytu ko ba mu egsi tey te xeet wu ne wuute ko ak moroomam booy mooy booy bu juróom-ñaareel bi bu juróom-ñetteel bi te moo ci mujj mooy aturaas ash-sha'bi mooy bi nga xam ne mbooloo mee ko ànd bokk di ko def moom it dañ ko dañ ci ñëw ci leeral ngir ñu xam liñ ci jublu dëgg-dëgg kon ñu dellu soit ci bu njëkk bi waxoon nañ ne juróom-ñett la bu jëkk bi mooy ad diini wàllu diine at tabi'i wàllu àll beeg ya ci aju al thaqaafi wàllu xam-xam al lugawi wàllu wax al ilmi wàllu xam-xam bi nga xam ne mën naa jur luñ mën a jariñoo léegi léegi ci àdduna al adabi wàllu taalif ak bind al xadaari wàllu aada ak cosaan al shaabi li nga xam ne waa réew mi ñoo ci dëppoo mu def ko baax ak di ko jëfandikoo ñu ñëw kon ci bi jëkkoon te mooy ak diin wax naa fi léegi ci njalbeen gi ne ak diin ñoom ci niñ ko dëgg-dëgg biñ ci am mooy lus di jaam rek mën naa dugg ci aturaatu diini wuuteeg nun wala wuuteeg njàngaleem sëriñ bi wala wuuteeg njàngaleem lislaam ndax ñoom li xam ci diine mooy tënku ci alquran ak sunna alquran ak njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa te loolu mooy li ñu ñor ñun kon ci biir séddale googu addiin yi liñ ci ñor liñ ci namm mooy addiin addiinul islami mooy alkitab wa sunna nabawiya ni ko sëñ Tuubaa jàngalee ñaareel bi kon boobu mooy addiin yi ñaareel bi mooy at tabi'i waxoon nañ ko léegi mooy loo xam ne ba ca suñ borom noppee ak léegi loxol doomu aadama delluwu ca muy lu ñuy wax ak tik ak takwinaat al physiologie wala géologie maanaam lu mel ne doj yi ak tund yi ak xur yi ak ndox yi loolu jëfi suñ borooma yoonu kenn newu ca boole nañ ko ci tuuraas ñoom ñetteel bi mooy asaqaaf yi te mooy li ñuy donnante mu jóge ci ay maam ak i baay ci ay aada ak cosaan loolu mooy ak turaas saqafi te mooy ñetteel bi kon ñeenteel bi mooy ak turas al lugawi waxoon nañ ko léegi mooy yenn baat yi ñuy jëfandikoo te xeet wu ne am nuñ koy déggee wuteeg ña ca des muy al mustalahaat wal kalimaat moom itam am ci yoo xam ne li ci ëpp cosaan lay doon waaye dañ koy doonante moom agsi loolu mën nañ mën nañoo jàpp loolu mooy aturaas al luxawi mooy ñeenteel bi juróomeel bi al mooy aturaas al ilmi liñ jublu te junjoon naa ko léegi mooy al ixtiraaw al mooy liñ fi fekk ñu di ko jël di ci soppaxandiku ba mu am natiija ba mu jur loo xam ne mën naa am njëriñ mën na mën na jël misaal bu sa bopp dee metti nga dem ci farmasi jënd fa nga dem ci fi ñuy jaay garab bokk jënd fa garab naan ko la koy seral pexe yi ñu def ba mën a am loolu lañ jublu ci al ixtira al ilmi fii muy juróomeel bi juróom-benneel bi mooy al adabi al mooy bind ak taalif yu rafet muy way ak wesax la mu ci mën a doon kooku kon mooy al turaas al adabi moo doon juróom-benneel bi juróom-ñaareel bi mooy ak turaas alxadaar yi mooy wàllu aada ak cosaan wax nañ ko léegi te day dellu ci xeet yi ak fi ñu dëkkee kon dafa mel ne wet gu ne am nañ xadaara am nañ seeni aada seeni cosaan yoo xam ne wote na leneen ak kudul ñoom kon loolu mooy juróom-ñaareel bi mu des benn mooy al turaas al shaabi mooy li nga xam ne mbooloo mee ko bokk jàppee ko lu su war a def ñëpp ànd ci bokk na ci yooyu ay nettali jaloore yi maam yi defoon démb ci lañ ko boole ak yenn xarale yi jëm ci wàllu fànn wàllu jumtukaay yu ñuy jëfandikoo dem nañ ba ci ay way sax maanaam masalan bu ñu ko doon misaal ci yoonu murit dañuy wax ne lu mel ne daaji xasida yi day dugg ci aturaaf acham kon lim nañ juróom-ñett yi nga xam ne waa munazamat al UNESCO nga xam ne àdduna sépp a ko bokk ñoom jubóo nañ ci ne ci juróom-ñetti pàcc yooyu ci la ak turaas séddaliko te li tax ñu nangul leen ko mooy Sénégal gii ñu toog nekk da ca daa bokk ci ñi ko nangu ndax bokk na ca munazama ba ak daanaka réewi àdduna bépp kon loolu la àdduna jàppe ne mooy ak turaas léegi nag lan mooy taxawaayu yoonu murit ci benn bu ne ci turaas yooyu ñu lim bàggat bu dee ak turaas ak diin yi da ciy taxawaalu taxawaayu sunu sëriñ sunu yaakaar Cheikh mooy téye ci alxuraan ak sunna def yonent bi mooy royukaayam kanzil kitaabu wal xadiis wal adab la jamu fiddatin wala jamu dahab waxaat feneen ne diinun siwa islaamihi la yuhmadu inda al ilaahi wa bihi nujaddidu kon kooku leeral na fi mu jëm ci wàllu diine te sunu borom a ko jëkk wax ndax bi lislaam ñëwee dafa xamle ne diine ya fa ya fa nekkoon yépp naax saay na diine bu jëwéer fi suñu borom mooy al islaam inna diina inda indallaahi al islaam kon mooy tegu ca tegu ci siraatal mustaqim nam ci nekke woon moom mii lu toog fi keppaaram jàngale ko yar ca ñoom la kon loolu mooy turaas addiin yi ci mafhum wala ci taarif bi ñu ko mën a def ci yoonu murid sax ci mooy safaan la loolu nag dafa mel ne ñi ko fi wuutu moom ci boppam ak ñi ko fi wuutu ñépp mësuñu cee gis wala ñu dégg ku def lu wuteeg lool ba ci li ci mujj mooy yitte ju rëy jii Sëñ Muntaxa def ci jàngukaay bii mu taxawal mu ci dara lu ci ne lu weesu bëgg a sàmm ndonol diine sàmminu sellkat dara topp ci te loolu ña ko fi jiitu ña ko fi jiitu woon ñëpp dale ko ci sëriñ ba bis ni ki tey mëseesu cee gis wala ñu dégg ci ku def lu wuteeg lool kon taxawaayu Serigne Touba ak ak njabootam ci aturaaf ak diini moom lu leer nañ la bu dee bu ñaareel bi te mooy aturaaf at tabii yi moom liñ ci waxoon ci njëlbéenu waxtaan wi lañuy ñuy li mooy loo xam ne yoonu nit nekk yoonu doomu aadama néew ca kon loolu amuñu luñ amuñu luñ ciy wax kon loolu du yoonu murit du keneen ku ci amu aw yoon jëfi sunu borom la nam ko bàyyi woon na la ba léegi amuñu luñ ciy wax kon xëy na ñoom li dañ jublu ci indi gi mooy bii a dafa mën a def taasiir ci nit dañuy wax ne nit ki fi mu dëkk bu yàggee day jeexantal ci moom moo tax ñu joxe misaal ne ñi nga xam ne ñoo dëkkee jabar lug Lubnaan masalan nit ñi ñoo dem ba njaay àll doon ay njaay àll ñoo dem kon ba nuróog doj yi ba nuróog xeer yi waaye du caageen xeer yi ñoo dem ba nuróog nit ñi dañoo dem bañ lay àll ndax yàgg ci àll bi dëkk ci biir doj yi ak ci biir xur yeeg tund yi walla deen soppi xëy na loolu moo tax ñu boole ñoom ci turaat mooy loo xam ne yoonu nit yoonu do yoon loxol doomu adama amu ci aw yoon kon mooy boobu moo doon bu ñaareel ñu ñëw ci bu bi te mooy turaat الثقافي mooy aada cosaan waaye thaqaafa bi ñu ci itteel ñun mooy ak thaqaafa al islaamiyya mooy xam-xam bi am njëriñ te mooy bi nu lislaam indil boobu nag mooy li ñu fi fekk maam yi ak bàyyi doon ko doxal ba agsi ci noonu mu doon nekk ci ñoom loolu mooy ak thaqafa waaye bi nu ci ëppal solo nag mooy ak thaqafa al islamiyya ni ma ko waxee léegi ak thaqafa al islamiyya nag li ci am sew-sew mooy gox bu ne ndax lislaam xamee xam ngeen ne mi ngi jóge fii Arabie Saoudite nekk tey mooy Hijaaz ak Najd tasaaroo bi muy tasaaroo nag gox bu ne daf leen fekk ak i melokaan bi diine ji ñëwee nag la ca baaxoon daleen koo ko bàyyee léeg-léeg sax mu suubal leen leen ko ba mu gën a rafet mu bàyyi kook ñoom kon fi lislaam am fépp xadaara islaamiya la naam waaye nag am nay melokaan ci gox boo dem ko ne danañ ci ñëw ci ak leeram maanaam xadaara maanaam saqaafatun saqaafa bu ci nekk dafa am taabia xaas bu dee fii dafa am taabia ifriqi nga dem fu mel ni Iran mu am taabia farisi nga dem fu mel ni al andalus mu am taabia europi mën naa am sax taabia janubu sharq asawi ndax fa fépp fu ci nekk mantiqa la boo xam ne lislaama nga fa waaye nag seeni aada seeni cosaan wuute na te moo ne lépp lislaam nangul ne leen ko masala liñ ci faral joxe misaal mooy ci wàllu sol sol yére lislaam la ma sant la ma la santoon mooy na sa awra sang na mel nangam ak nangam boo boo sàmmoonteeg loola rek ak noo ko mën a defe lislaam dala koy nangul moo tax fi mu ne day bari fooy dem ci al alamat islaami da ngay gis góor gu tarxlaayu maanaam dañuy wodd dañu dañu dañuy wax woddu fii bu doon fii mu doon lu jekk lu jaadu ci ñoom doon loo xam ne islam wax dara ndax sàng na cër ba ba mu la waxoon ca njalbeen nga ne boo ko sàngee rek mën ngaa julli mën ngaa def nanga mën nanga waaye nag taxut boo ko defoon fii mu jekk loolu ci asaqafa al islamiyya la waaye nag kenn ku ne am nga ca saw ma neen bu fekkee ne misaal moomu mënees na ko joxe waaw bu ko defee nag bu ñëwee ci yoonu murid kon lu neex a misaal la bu ñu jëlee wàllu càngaay wàllu sol col ñi sol yére neex naa misaal ndax dafa am ay tur am na lu ñuy tuddee bàyyi laat masal am na lu ñuy tuddee sëriñ Soxay doonte ci njabootu sëriñ bi lañ bokk bokkoon ci ñi nga xam ne rafetal nañ sàmmin wuñ sàmmul ndono li teewul boo waxee seeni tur sa sa xel mën naa dem ci mën naa bañ a dem ci seeni jëmm waaye day dem ci melokaan woo xam ne yoonu murid moo ko indi ci lislaam te mu jël jëm ci wàll gi ma doon wax léegi muy wàllu sol kon muy wàllu aada ak masala dem ba ci njaxasi Baay Faal loolu koy dugal ci solo gi nga xam ne lislaam nangu na ko ndax solo gu jot la waaye da koy moomale gox bii nu dëkkee muy Afrique boo ñëwee ba Afrique itam nga moomale ko yoonu murit ndax fi la mi nga xam ne ni la bàyyi laat ak seen soxla bi dem masalan ak yeneen bu jeex ba ci aw dëkkiin xam ngeen ne sëriñ bi daf ci indi sawra ndax te loolu it dëppoo loo lool ak taalim lislaam mooy ñu war a ànd nee ñu boole leen jaxasoo bi wàññiku ci yenn yenn fànn yi fi mu gën a feeñ nag fi mu gën a feeñe mooy njaareem ndax fa la gën a sax fa la gën a yàgg moo gënoon a am nizaam ci ak nekkam da fay gis aw doxalin boo xam ne foofu rek lañ ko xame woon wala fa lañ ko jëkk xamee boobu ba fi mu ne it fi ëpp ci réew mi mooy fi nga xam ne sëñ bee leen yar jàngal ci wàllu dëkkuwaay mooy li ñuy wax ay kees kees sàngam kees sàngam kees sàngam keesub doo ngay tarbiyee keesub ñu toll ci xamlu keesug soxna yi ilaaxiri ndax bu fi boo demee ci kaw gi bu yàggul laa jóge kajoor ak bawal li not ci dëkk yi mooy ndax fii mu ne su fee duggagun ci wàll ay taax taax xewut kaw la taax yi booba ci fa tubaab yi nekk la yam li xew booba ci réew mi kon mooy dëkk bi ñu ngi may bëgg a wax te moo am ba léegi mooy kër gi boroom kër gi day def néegam ci digg kër gi ci li ma gis li ci ëpp néegi waa kër gi dañ koy wër néeg boroom kër gi li ci ëpp day am buntub sarale bu ko defee ci ginnaaw néeg ba day am ab wurmbal wurmbal ba li muy jariñ mooy bu nooree ñu defa denc dund bi ak fas yi ak ñi bañ mu laatu wala mu sànq wala mu sàcc ko kon lii moo doon aada ji ñu xamoon ci dëkkiin ci fii nga xam mooy Kajoor ak Bawol sëñ bi nag bi mu ñëwee daa soppi lool moo tax am na bis may wax ak nit mu ne ma la xewoon janub Ifriqiya nga xam ne boddi konte la ci biiru xeet mu ne ma daanaka moog li sëñ bi def benn la yéeneem daa rafet te ñee seen yéene ñaaw rek mooy ñenn ñu méngoo mbir ñu ne nga boole leen ndax dana yéwénal dund gi tam dana tax kenn ku ne du yëg xat-xat ci fi mu ne xam ne soxna yi ñoom daal ah, ñu toll ci jàng ak tarbiyu ñoom daal wala ñoo mëneen bopp loolu dana yombal kenn ku ne gis sa bopp ci saw nekk loolu bokk na ci sawar bi nga ci wàllu dëkkuwaay mu ko ci ak kon ci tomb ñeenteel bi mooy ak turaas allugawi te li ñuy wax bàggal danañ ci ñëwaat ci njaareem bi njaareem dafa fees dell li tax mooy mbooleem diir bi sëñ bi am ci loxoy tubaab yi boo ko séddalee ñaar wàññi ci ñetti at moog lim am njaareem ñoo tolloo fanweeri at ak ñaar fanweeri ak ñett fukki yeeg juróom lépp njaareem istiqraar googu nag maye na yu baree bari feeñ fa daan ci ñëw ci kanam insha allah bokk na ci kon dëkkin yi ma wax bàddal alluxa bi euh, moom it yoonu murit ndax wax naa lee buñ jógee ci buñ jógee ci tamhid te mooy wax la mooy turaas dañoo ñëw ci turaas yi nga xam ne waa adduna séddale nañ ko muy juróom-ñett yëpp lan la ci yoonu murit am ci wàll ci loolu lañ nekk ci turaas alluxa te mooy ñeenteelu tomb bi kon li ci yoonu murid def lu yomba jàppale yomba xam muy ay ay ay ay wala ay kalimaat yoo xam ne néew na lool nga fekk ko feneen fu dul ci fu ay murid nekk maanaam fu dul seen dëkkuwaay wala seen nekkuwaay néew na luñ koy jëfandikoo kon ak turaasu lugawi yoonu murid indi na ci wàllam misaal mi nga xam ne mën si na ko cee joxe mooy te lépp nag day dellu ci ay teggin ni ko sëriñ bi jàngalee wala bokk ci la gën a feeñ boo dajee nit koo xamul li ci ëpp bari na loo koy wooyee jëwriñ baat la bu tasaaroo ci yoon murit wala ku baax baatub ziyaar daanaka ñëpp koy jëfandikoo na lool néew na lool te loolu yomb xam la bari na fooy dem ci réew mi rawatina ci taax yi boo dee lijjanti dara boo egsee li ñuy xaar ci yow mooy nga wax ay tubaab néew na lool ku yaroo ci keppaaru suñu tubaab dem jàpp ne li mu war a njëkk a wax tubaab lay doon néew na xanaa ñu gàkko ci ñu gàkko ci loola mu wax ak nit ko kooko tontu ko ci weneen lakk muy lakk tubaab li ci ëpp lakk tubaab sax lay mën a doon bu fekkee ne xam na làkk tubaab mu tontu nag day jàpp moom ne li mu war a jëkk wax rek mooy wolof gannaaw ci réewum wolof lañ nekk ki nga fekk wolof la yow mi nga wax ak di ca wax làkku jàmbur bu jóge bitim day mel ne du farata loolu moom sëriñ bi jàngal na ko tun ñëpp nangu xam la ci boo xamee ku yaroo fi kon loolu sëriñ bi def na ci aturaas alluxa yi loo xam ne luñ mën a teg baaraam la mën caa loxo weesu na foofu sax ndax sëñ Saalihu Mbàkke radiyallaahu anhu dégg nañ fii mu wax ne baatu màggal ci sëñ Tuubaa lañ ko kon dafa mel ne yoonu murit indi na sax ay baat yu yees kon ci làkk wi nga xam ne mooy alluxa almahalliya te mooy te mooy wolof yi nga xam ne moo nekk ci réew ñu ñëw kon ci bu ñu jógee ci alluxa bi ñëw ci al ilmi te mooy juróom-benneel bi astafirullah al al bi lañ nekkoon waaw ñu ñëw ci al ilmi mooy juróom-benneel bi kon waxoon nañ fi léegi ne al euh, ilmi liñ ci namu ñoom mooy al ixtiraaw al ilmi mooy li nga xam ne ndax doomu aadama amul dara lu mu defar ci àdduna loo fi gis rek lu fi sun borom def la doomu aadama soppax ndiku ca ba jur dara waaye loo xam ne nit a ko sos am mën nañoo fekk nag li fi sun borom def ñu di ci soppax ndiko ko weccandiku ba jur dara duñ mën a teg la loolu mooy al loolu def naa ci njuumte lu rëy bu yàggut ñàkk xam la woon ci bi ñu jub màggal Kazu Rajab def nañ ciy waxtaan ci buntu ko Sëñ Fàllu ma ne loolu amul ci ku ci def dara ci yoonu murit wala xawma ko kon maa ko xamul waaye am na mën nañ ci jël misaal ku mel ne seen Mbàkke Buso alaalaama alaaj Mbàkke xam ngeen ne ci wàllu te dañ dañuy delloo loolu lépp ci al al al al turaas addiin ndax sëñ bi ci loolu la nekkoon ñi mu yoroon ñëpp kon moom yitteem yépp mooy lu muy rafetale diineem moom suñu Mbàkke Buso ak ñi mel ne moom ñëpp ci keppaaru sëriñ xam ngeen ne lim dakk ci taxdiit ak dabt awqaatu salaa wal qibla loolu moom mësee su ko gis man bu ci am maanaam seet penk na mu gën a jaaroo booy julli waxtu yi muxtaar bi ak darur ak darur bi ak toppatoo ko ba xam la ca suñ borom digle nga def ko li ci sëñ Mbàkke bu sa def xawma ci taarix ko ci li la xamal ne loolu muy tajriba ay ñeeg bu wér moo xam ne day natt di yokk di wàññi di natt di yokk di wàññi ko suñ borom wan ko ci loo xam ne kenn mënut a lu ko gën a wér ci fànn ko kon loolu yoonu murit te ñàkkul yeneen sëñ Mbàkke bu sa ci yeneen fànn waaye daal li mën na koo wax ci la kon yoonu murit def na ci lu leer a leer li ci firnde li ci firnde moom yàggul rek euh, am na ñoo xam ne ñu ngi jógee ci wikalatul fada bi nekk Amérique ñu nga xam ne ñoom dem nañ sax ci weer bi dem dem ci weeroo ñoom yoon tool lañ ko def nga xam ne ci wàllu jaww ak natt ak peese ci wàll boogu moom ab delluwaay lañ ci marjax nañ ci ñooñu ñëw nañ fi beegu daaw fi lool ngir am na lu leen lënt ñu di ko seet si ci ci ci gëstu seen bakka bisu kon kay noonu ndekkee noonu ñoo xamul li waaye adduna xam na waa NASA nga xam ne moom delluwaay la ci wàllu ab xaas fasa yi ñoo fi ñëw di jàng si seen bakka bisu <laughs> ci loo xam ne peut-être kon kay xanaa lay ixtiraaw la ñu moom <laughs> buñ koy wax kon yoonu mu rita kon loolu lu leer la loo xam ne du lu ñu laam-laame bëkk dem la ci jóg ñu bari ci ñoom gis nañ leen xam nañ kon alhamdulilah euh, kon ñu jóge ci boobu ñëw ci al al turaful adabi ba téene moom ndax borom yi fii ci boppam moom ko tëdd ki qaddasallahu sirra li ci def moom ci boppam rek doy naa yem waaye li ci njabootam def ci njabootul boppam ak mag ñu nga xam ne moo leen yar jàngal leen kenn mënut a gis lu lu lool te lépp di lislaam ci téere ci taalif ay téere xam-xam ci teg yonent bi ci wane kan mooy Seydina Muhammad ci jàngale ci yare feeñ na ci xasida yi feeñ ci murasalaat yi nga xam ne daana am digganteem ak boroom xam-xam yi ñu jamononteel woon ba ci waa këram ñi ba ci taalibe yu mag yi mën nañ cee jël ku mel ni Cheikh Ibrahima Diop al mën nañ cee jël ku mel ne Cheikh Mouhamadul Lamine Dagana du jeex te loolu ci làngu arab ci làkku arab bo làkku arab waaye boo ñëwee ci làkku wolof yi ñu doon wax léegi ñu nekkee ci aturaat al-luxawi moom it li ci waay yoon wi def luñ mën a wane ne la ci àdduna mën nañ caa tudd rek ku mel ne sëñ Moussa Ka sëñ Bay Jaxate sëñ Mooy Kay sëñ Mor Kayre ak ñeneen ñoom ñëpp ak Cheikh Samba Diarra Mbaye matala kon ak turaasul adabi ma ne soon na fanaan di ci wax bët set te du te du jeex li nga xam ni al islaam yi ci yoon murid def ñu ñëw kon ci ak turaas alxadaari yi alxadaara al islaamiya duñ ko mën a génn ndax moo fi indi woon sëriñ bi moo ko fi bàyyi woon lislaam rek amul leneen waaye ni ñu ko waxoon ci turas althaqafi dafa am xadaara islaamiya ifriqiya wax nañ ko léegi ci wàllu col am xadaara islaamiya asiawiya boo demee asia la ñuy doxale te ay jullit lañ ci loo xam ne lislaam nangu na leen ko mën naa wuute nun ni ñuy doxale kon am na xadaara islaamiya asiawiya am xadaara islaamiya ifriqiya am xadaara islaamiya turkiya waa atraab yi nu ñu doxale xadaara islaamiya farisiya wala iraniya masalan du jeex loolu mën nga ci ndax waxoon nañ ci wàllu col ba àggal waaye fii mën ngaa ñëw rek ci wàllu mbind wàllu mbindin te fi ne boo doon wër al alam al dem ci mataaxif yi nga xam ne muxassasa lil xadaara al islamiya la fay not dafay lot daanaka mbind lay doon mbind aw mbindin mbind mu rafet loolu dafa bokk ci li ñuy xàmmee alxadara islami da ci am doole lool da cee digg li ko li ko indi nag mooy alquran alquran naka jekk jullit ñi dañoo farlu ci di ko bind ak di ko rafetal ak di ko toppatoo waaye yemu ci xam ngeen ne wàllu tuxal ay xam-xam lu ñu miin la ci lislaam te loolu lépp jamono yooyu lu ñu koy bindee lu weesu loxo amul mu génn fànn ci wàllu mbind boo xam ne wala ay funoon yu bari yoo xam ne tax na wàllu mbind doon lu diggu ci lislaam rawatina ci Bagdad jamono yi al dawla al abbasiya ci nizaam fi nga xam ne Abu Hamid al Ghazali nekkoon na fa moo ko jiite woon sax nga xam ne boobu lu bari ci xam-xam ci ci ci al-Ighriq lañ koy jëlee di ko indi ci lislaam jamono yi tam gis ngeen mbind ni mu tasaaroo woon loolu tax na wàllu mbind doon lu lu lu digg ci alxadaara al-islaamiyya mbind moomu nag loolu moo da cee am ay yu bari fekkoon na fi mbind mi naam waaye indi na ci wàllam ci loo xam ne du lu ñu nattable li ma ko waxee woon léegi ci yu weesu lu ñu teg loxo la ndax dafa am tur fi mu boo fi génne woon kaamil bi mu bindee ko suñu soxla fi saa si mën nga ne bii ko suñu soxla la bàyyi ko donte ki ko bind mën naa mës a mën naa bañ a mës jaar ci kër waaye daal dañ koy roy di ko tuxal di roy di tuxal ba mu ba mu ba mu génn foofu waaye teewul fa waxtu woo ko gisee da xam ne fa la dëkk alaaji sëriñ Bousso mi nga xam ne nekkoon na imaam fii mu toog am na mbindin yoo xam ne foo ko gis xam ne fa la dëkk sëñ Mor Mbay Siise ci njaareem am na ko sëñ Jëmb Siise Nasare am na ko du jeex fii ma toog mën naa ci lu bon bon fukk mbaalu ko te yéen bu bëgg gën a xam kon ci alxadara islaamiya bi nga xam ne wàllu mbind la yoonu murid def na ci loo xam ne luñ war a mën a woon adduna la kon loolu sax moo tax may wax ne bu fekkoon ne dañoo wootee maaraat wala ndaje moo xam ne dañ naan ñi fi woo mooy ñi soqikoo ci dëkk yi nga xam ne lislaam moo fa not wala dëkki lislaam la kenn ku ne na indi la mu gën a rafetle ci alfamil islam yi Sénégal bu ñu dee wàll yaan bu ñu yóbboo yoonu mu rek dana sëkk ci loo xam ne xadaara islaamiya bu yor tawabi islaami ifriqi di ci yoonu mu def doy naa wane bu fekkoon ne dañoo woote ndaje moo xam ne àdduna sëpp fa nekk ñu wane taaru lislaam ci gox bu ne la cay wàllam ak la cay aadaam ak cosaanam dama ne bu Sénégal doon dem bu yóbbaalee yoonu murid rek doy sëkk ci ñu wax bàggat kon boobu mooy juróom-ñaareel bi ci muy al al ñu ñëw kon ci euh, euh, bi ci mujj dafa naa mooy euh, turaas al shaabi waaw wax nañ fi léegi bi ñuy koy taarif mu ne mooy nett nettali jaloore yi ñu fi nekkoon démb bëgg dem bokk na ci waaye bokk na ci ay way ak i wayyin ba ci daaju xasida bokk na ci ci atrafu shaabi daaju xasida nag doon na loo xam ne moom it dafa fees dell ci yoonu murit ci parti bi nga xam ne ci la féete ndax te dafa ànd ak yoonu ca cosaan ba léegi ndax xam ngeen ne jàng bi ne woon nañ ko def ci kanam sëriñ bi ci boppam bu fekkee ne waxul nañ ko jàng ne jàng nañ ko baagal néewul nañ ko bàyyi wala jàng nañ ko baagal mu woo ki doon jàng neexal ko kon day wane ne moo nekkoon nañ ko defe noonu euh, moom itam dafa am ay magaris ni ñu ko waxee léegi xam ngeen ne bu ñu waxee njàngum xasaay xel yépp day dem ci kër sëñ ma sàmba te du moom dong waaye boo génnee xeetu njàngin woowu nga moom lañuy wax kuréel tey am na yeneen xeetu njàng yu am ci yoon wi muy njàngum awu loolu ba tey day dugg ci aturaaf ash-shaab nga xam ne loolu moom kuréel yi sax ba tey ñu ngi am ay daaj yu yu ciy feeñ rawatina kon njàng mi nga xam ne ginnaaw bi la bis bu set nga dégg njàng moo xam ne wuute na ak na nga déggoon dem te fii addunaa ngi tax day dox ek maanaam madaris yooyu mën nañ cee tudd ku mel ni Cheikh Fall Xataab ab tàmbali la ci aw njàngin ci li ma jàpp xëy na am na ñu ko jiitu waaye daal jàpp naa ne am na loo xam ne ci moom la tàmbalee ci xeetu jàngeen ci liñ xam ci njàngum aw mu ñu mujj wax nga topp ko ba ci ku mel Cheikh Lo bu bari xam nañ ko ci ñi fii ñu tolloog man ay at ci jotaay bi xam naa xam nañ ko wala ñu ma mag waaw ah, ñëw na ba ci ku ñuy wax Modou moom it mel na ne indi na ci lu yees loo xam ne am nañu ko dala ci moom di roy ba agsi fii nu agsi tey mën nañ nekkoon kon loolu mooy yi ci gën a ràññiku ci eh, cosaani aw njàngeen donte gannaaw am na coppat yi daal mooy yi nga xam ne bànqaas yu rëy la ci njàngeenu wala daajeenu xasida yi bokk du ñàkk ju ma bàyyi waaye jotaay bi loolu ñu dugg ci lépp bu ko defee nag li ñuy wax ba àggal li ci am solo booy tawfeex ji suñu borom def mooy mu jamaa bi ñu doon waxtaan léegi ci njëlbeen waxtaan nga xam ne moom barabu gëstukaay la barabu gëstukaay la boo xam ne dafay feeñal njàngaleem Serigne Touba waaye day feeñal itam li nga xam ne yoonu murit desu ci gannaaw te mu bokk ci ndono ndonay lislaam yi ñu ak wër yi ñu lim ba àgg yaakaar naa ne kooku loolu kon sasu donga yi fa war a nekk la di def gëstu ñu xóotal ci bind ci ay risalaat bu indi ci loo xam ne dana gën a feeñal li ñu fi junj kon jot na sëkk ñu di ci soññ ndaw ñu toll ci gëstu ndax yi ñu fi wax lépp lu ci ne mën na si na ci bind ay mujallad ak lu jeex gën koo feeñal gën a xam gën a wax mu si a mën a bari jariñoo kon loolu ab soññee la ci ndaw ñi nga xam ne toll nañ ci jàng te bëgg a def gëstu te yàlla defal ma tawfiq euh, sëriñ bi indi na jàngukaay bu xam ne bii mun a indi te mu ubbi ko bu yàggul yàlla na naan yeneen bàggale ko te mu ànd ko moom bokk na ci euh, turasu shaab yi tuddee al funun wal xiraf xam ngeen ne wax naa fi léegi ci njaareem mais mooy fi gën a yàgg ci fi nga xam ne tey woon nañ fa sëriñ bi yàgg googee nag dafa maye euh, yi nga xam ne nit mënu koo ñàkk te sëriñ bi ni ngeen ko xamee dane woon bu ngeen soxla na ngeen ko fexee wutal seen bopp ndax bu ngeen def sàkkoo ci keneen wolof day wax ne ku la mën a sañal la te bu boobaa yàlla ka la war a sañal ba tax na murid yi dañoo defoon al i'timaad ala nafs maanaam li ñu mënta ñàkk dañ ko doon jéem a defal sant ci njaare rawatina ndax wax naa moo gën a yàgg moo gën a am istiqraar am na fukki at juróom loolu nag dafa feeñal lu baree bari ci wàllu fànn yi ci solo nag mooy di doon itteel itteel sëriñ bi mooy alquran ak xasidaam yi nga xam ne ci doon teg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci taaral ko ak rafetal ko loolu moo indi mu daan ko defaral ay néeg néeg yooyu ay néeguy ñax la daan doon ñu ñu ñu sàkkate ko ay per peri xat waaye foofu al fannul islaami muridi feeñ na fa ci kaw lan li ñu wax sosam notoon na fa lool sosam am na ci gone ñoo xam ne xamuñu ko waaye mooy euh, puj yi wala pëj yi nga xam ne moo nekk ci xat bi ñu di ko tollale di ci def ay di ko ràbb di ci def ay ay ay ay ay ay bind wala leneen lu kéemaane bokk na ci yooyu jafire mooy defukaayu téere yi ni ko daan liggéeyee moom it xamee sut du ko gën a tàng ba fii nu toll ci wàllu fan ak xelaf kon li ñu waxoon ci njëlbeen ba day dellu si mooy sëriñ bi itteem lépp alquran la itteem lépp xam-xam la itteem lépp yonent bi la kon loolu daf ko doon def ngir taarale ko alquran taarale ko tawaalif yi nga xam ne moom la def di ci tag yonente bi sallallahu alayhi wa kon njaareem ji doon na lu fees dell ci wàllu alfunun alxiraf te mu dugg ci euh, tomb bu mujj bi te mooy aturaat alchaab mu mel ne njaareem ji kon dafa feeñal euh, lu bari xam nga sëriñ bi bi muy ñëw fekkoon na fi lislaam waaye nag fekkoon nañu dugal ci lu baree bari loo xam ne bokku ci bu mu ñëwee kon dafa ñëw delloo lislaam ci cosaan kon dafa mel ne njaaram itam li muy feeñal fii mooy yàgg gi mu yàgg ci ci loxoy tubaab yi dafa dafa dafa demoon ba mel nii euh, lu baree bari daf doon xawoon naa nelaw wala boog murid yi fu ci na fañ nekkoon ni nga ko fay dundal waaye nag ni mu dajee ci njariñ amatul amagul ndax kenn ku ne daane woon ci barabam di fa ko fa bi santoon bi du ko def waaye nag dayoo am ci njariñ bi mooy daje gi mu neex ak ñëpp daje fa mu mel ne kon day marxala boo xam ne lislaam wala yoonu murid dafa jóge ci in li ñuy wax inxitaat mooy nelaw dem ci nax ba mooy yeewu di nelaw ba mu yàgg nga yeewu ko loolu dafa ne moo feeñ ci njariñ ji ci wàllu taalif waaye yëmu ci wàllu taalif ba ci li ñu junj léegi te mooy euh, jumtukaay yi nga xam ne teral alxuraan ko taxoon a jóg tolluwaay ji ci amoon ci jamono jooju ak ci wàllu taalif ak yeneen yooyu yëpp ba nga xam ne moo indi liñ fi tudd léegi muy sosam ak wàllu jëfëre yi te loolu damay dellu siwaat ci li ma waxoon léegi mooy ne war nañ koo gën a xóotal rawatina ci jàngukaay bi ci gone yi def euh, gëstu ba mën cee génne loo xam ne àdduna ko mën bokk na ci turasu charme yi man dama ciy boole loo xam ne moom sama gis-gisu bopp la Café Touba dañ ko ci dugal ndax Café Touba dafa ànd ak yoonu murit bu dul dara sax turu rek wane na ko ñaareel bi wax nañ saxal nañ ne moo tax mu tasaaroo ci réew moom sëriñ wax nañ ne Gabon la ko ñu ko gisee ci fi ko tubaab yi doon téye muy quartier bi nee ñu mu gis ñu di ko naan guddi mu laaj leen lu ci jublu ñu ne ko dañuy taxawloo fii guddi te dañuy bañ a nelaw moo tax ñu di ko naan te bu ñu ko naanee day day dox suñu digg ak nelaw mu leen ginnaaw yéen a yéenay bañ a nelaw day gën man lañ ko tàmbalee ko jëfandikoo ndax moom ñoom àdduna rek a tax a koo xam ne nag àdduna rek a tax ngay bañ a nelaw ki nga xam ne moom ëllëg ko tax a jóg te fii la koy fàggoo naka naka naka moom <laughs> ñàkk a nelaw ko looloo tax bu ñuy ñibbisi la ko ëndaale mën nañu wax ne. te lu yomba xam la mooy fi yoonu mu ëpp rek fa la gën a tasaaroo bu fi mu ne Sénégal gi am na ci barab yoo xam ne xamuñ ko fa kon loolu moo lay war ne bokk na kon ci aturasu shaab bokk na ci li nga xam dañ koy moomale yoonu mu mën ko dugal kon ci al shaab yi nga xam ne ci leen dugal euh, daal ci xasida yi ak yeneen moo tax sax ñu doon ñaan ci biir mbootaay gi doon wax léegi ne ñoom ñoo taarif lan mooy turaab te mooy munazamat ak UNESCO ñu wax ne koon war nañoo fexe sax ba café Touba sax ñu ko fa ndax dégg naa daaw ne li nga xam ëpp ci réew mi léegi moom la ñu añe muy ceeb bi ñu def ay jën nee na dugal nañ ko fa bu dugal boole ko ci turaab la alami di UNESCO ginnaaw loolu am na café Touba kon war nañ ko dugal foofa mu xam ne doo doon tudd yëf yoonu murit waaye yëf yi adduna la war a doon ngir njariñ loo xam ne lii ñëpp seere ko nga xam ne kon day dugg ci alxadaara al islaamiya al al muridiya léegi nag ñu ñëw kon ci tomb bu mujj bi te foofu laay daaneele mooy unwaan waxtaan bi mooy waajibuna tijaaha ak turaafil xadimi lan lañ war a def kon ba sàmm noonu waaw ah, ñi ñu jiitu woon de moom gàcce ngaaloon wax naa ko fi léegi ci ñi wutu ñi wutu sëriñ bi ñëpp ak ñeen àndaloon ñuy mag ñi àndoon ak sëriñ bi ak seen jaxoon sàmm nañ lépp de ba mu agsi ci ñun ci léegi nag nun war a def nun loolu ci des ni nu war a def leeral naa ci taxawaay bi sa mun taqaam wax naa ne jàngukaay bii mu fi teg amul dara lu ci jur lu weesu dëgëral loolu kese kese kese kenn mënut a wax bu génne ko foofu léegi nag kon lan lañ ko ci mën a dimbalee moom dimbali ci waajuram yam fi yam fi ak ak ak magam yam fi wóotu ak magi taalib yi nga xam ne ñoo saytu yoon ba mu yegg si fii mu agsi te ñoom ca loolu lañ nekkoon kon war na noo seet ñu ko war a defe ñu ko war a defee bari na waaye nag bokk na ca wut barab boo xam ne dama koy jagleel kon sàmm ndono li ba mu ñëw te loolu doonut lu ñuy sos waaye lu ñu sof rek la ndax bu fekkee ne ginnaaw jumaa ji Cheikh Abdoul Ahad radiyallahu anhu yàlla ko ñaan ak fayal def na fi daaray kaamil daaray kaamil bu ñu ko waxee alquran moo tax ak xam-xam biñ ca jógee ñu ngi defar peru xasida yi sëriñ bi dénk na ko waa xas bu taqi ñu ngi sori nañ ci lool ñu gën ci ndokkeel biñ ca jógee dégg naa bokki dem ñu ne sëriñ bi joxaat na ndigal sëriñ am di xadi faal ci mu defar kërug alxuraan ci biir daara ji kon ginnaaw kërug alxuraan am na kërug xasida am kërug alxuraan am boo xam ne ko jagale alxuraan ndax sànq ne daara kaamil ak xam-xam moo ko tax na alxuraan kese kese am kërug barkeelu yi ñu ko ci sëriñ bi lu war koo sàmmi daa war a am man laa gëm te laa jàpp kër gi nga xam ne dañ koy jagleel muy muy kërug barkeelu yi nag mooy yóbbaale eh, alxifaaz ala bu defee liñ jële ci sëñ bi ci barkeem lépp ñu dajale ko te mi ngi fi bari lool démb laa jóge France démb démb na nga ni démb maa ngi coono ak sëñ dama yóbbu woon mooy daa am ay bokki taalibe yoo xam ne dafa am ay nataali sëñ bi yu feeñ yoo xam ne bi ñuy teg alxajarul asaasi yi masjidi Jurbel bi ñuy bi ñuy teg xeeru njëkk jumaay Njaare lañ ko foto ki nga xam ne mooy al al muhandas al muhandas al mihmar mihmar yi moo ko teg moo ko moo ko foto woon ki yoroon liggéey bi daal ki tegoon loxoom ci liggéey ci loxo ci loxo loxoom ci liggéey bi ci moo sàkkoon sëriñ bi jël foto yi turam ak lépp ngi ci gannaaw ba foto yi di dox di dox ba ki mujj ci loo xam ne da koy wecc ko bi mu ko tàmbalee wax sax la mu ko doon wecci ko ëppul junni ci xaalisub Sénégal waaye bi mu gisee riir mi ak yëngu bi yoonu mu doon yëngu ngir seet ni ñuy def ba am ba jot ca mu aj ko ba ba ki dem bi ñu koy jënd ñeent fukki million lañ ko jënd euh, bi ñu ko jëndee nag ay bokki taalibe taxaw ca ba loola loola sotti bi njëgee nañ ne noo ngi dox ci luy taxawal këru barkeelu yi ñu yëgal ma ko ànd koog man bi nga xamee ne war nañ saa jot nag moo ma taxoon a dem bëkk dem ba jot nañ ci ba indi nañ ci Sénégal mu ngi dem maa ngi coono di ñëw ak seen kon loolu day wane kon ndeke ne li ñuy fexe ci sàmm ndono li ndeke gisaguñu woon sax lépp kon day mel ne eh, ndax. lu jóge ci ci bi moom nun waru di gis ko am na lu muy def ci noonu loo xam ne lu wér wér bu ko defee nag euh, loolu kon mooy li nga xam ne yaakaar naa ne jot na yàlla nag def na ci sutura bi nga xamee ne sëriñ bi yëg na ko si mun taxaa yëg na ko joxe na ci ndigal ba joxee tur wi li nga xam ne bu noppee li lay tudd muy al matxaf al islaami al xadimi eh, léegi kon li tax mu war koo def nag li li nga xam ne moo tax mu war koo def mooy <clears throat> sëriñ bi léppam yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam te boo demee Turquie tey am na fa matxaf boo xam ne dañ koo jegale yonent bi mu nekk ci fu ñuy wax topkat yi nga xam ne tey boo demee jeexit yi ñu fi bàyyi yëpp yi ñu ci mënoon a saytu ba léegi ma nga fa te sëriñ bi daal warooy nuroog yonente bi ci lépp kon war na koo am ko ca sangam bu bële sallallahu bi ci toppit mooy daaree kaamil wax nañ ko fi léegi bi nga xamee ne egg na Cheikh Abdoul ginnaaw bu téere yi ak lépp jàllee lim mënoon a dajale ci jamono yooyu ci ndono ci ay jeexit sëriñ bi yóbbul woon na ko fa yaakaar naa ne ma nga fa ba tey ma jàpp ne loolu ab joxañ la woon ci ne fii kat fu mat a jëm la ndax daaray kaamil dina ak xuraan la ko tax jóg ak xam-xam kon ab junj la woon rek ne fii fu mat a jëm la loolu laa déggee man ci taxawaayam ci wet googu kon ma jàpp kon lii ñuy fexee muy ak barxamul islaamil xadimi lu jar bi ci ëpp solo nag te gën cee dër ndekk sëriñ bi sax da koo fafoon ñaan borom ci xasida gi nga xam ne ñu ngi ko tënkee ayatal kursi yi am na ci bayit moo xam ne day wax ne ixfad mataaya wa ahli wal walad wadiatan indaka fi saadi samad yow suñu borom li ma fi bàyyi ci ndono ci ay jeexit dencal ma ko fu yàq yeggul fi saalis sama kon te ñun ñëpp nangu nañ ñun taalibe yëpp nangu nañ ne sëriñ bi lu mu ñaan borom bu ko defal boobu nag mooy bi gën a dëgër si nangu ginnaaw mooy borom yëf yi te bëgg na mu am loolu mu doon jàpp ne am na ba noppi rawatina nag kii ko fi nekkal te wat ko sëkk nangu ko mu Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla ko yàlla yàggal te sàmm ko kon te loolu ñaanin ñi sëriñ bi def ñaanin ñi mu def fii ci xasida googu te li ci yéene sax li lay ne day am te day kawe xam nga eh, ayatul kursi yi mu ko defee nga xam ne araf wu ci nekk dafa jël def ci aw bayit bayit bi toll ak ihfaaz mataaya mooy alifu as-samaawaat bi tolloog wasia kursiyuhu samaawaati wal arda wala yaudu xifduhuma samaawaat moom liñ ci xam mooy lu kawe kon jàpp nañ ni kër gi day am tat lay kawe sax insha allah lii waxin bii ñaaneen bi nag lu ñu miin la ànd suufiya boo demee ci ku mel ne Chamal Aynayn am na biir boo xam ni niróo nag lool dama fa ñaanee ni sëñ bi ñaanee ci. bayit wi nekk ci ayatul kursi tam ñaante lu jëm ci wàllu sàmm ndono li bokk barkeel yu ñu fi bàyyi euh, dafa wax ne inni taxassantu bi saadi samadi wal xaayi wal miimayni min muhammadi loolu lu ñu miin la kon muy def tawassul ci suñu borom ñaan ci barke yonent bi sa aajo suñu borom faj ko kon loolu ñaan yi ñu sëñ bi def foofu ndax Cheikh Maal ay li mu wax mooy inni taxassantu bi saadi samadi wal xaayi wal miimayni min muhammad daal cee teg ne bi jasadi nabiyi aafi jasadi min ma yasuu tuulal abadi nag moom may jàmm te def ci sama yaram jàmm barkeeloo ko ci yaram yaramu yonente bi alayhi salaam defal ma jàmm defal ma ji wér te musal ma ci lépp lu leeral ba faaw mais xeetu ñaanam woowu la sëñ bi indi kon ñaan ci suñu borom sàmmal ko li nga xam ne moo la fi bàyyi ci ay barkeelu kon loolu li ñuy mujj nag kon mooy li ñuy ñaan itam mooy te di ko te ma gëm ne loolu lañu war a def xëy na njuumte la mooy jeexi li fi bàyyi kon ci dëkkukaay yi ak barab yi newoon lu ci ne rikuwaay nañ ko bàyyi na meloon ndax muy man te man ñu bari la dugg fi barab xam ne ba fa sëmbee ne nii la meloon loolu moom am na lu muy def ci ci murit kon coppi gi koy def rek ci ci ci kaw yeesalaat te lu ne ñu koo bàyyi lan meloon ba mu des nag fii nu toog fii moom du doon ci soppi moo tax ñu ko fi nekkal ñëpp ci loolu ku fi ñëw rek dafay sawal lay firnde ci ne fii moom faaw mu soppi mooy man dégg naa ci waxi sëñ Fall mu ne bi ko suñu borom waxee jumaa ji jinne yi ñëw nañ ak malaaka yi ne ko dañoo bëggoon nga bàyyi nu def ko wurus xaalis mun leen benn sëkk rek ndax dama am jamono te bëgg te bëgg njëriñ kon foo xam ne fi jamaa la war wala wurus moom moom moom foofu rek la jëm waaye mu soppi waaye lu dul jumaa ji rek waaye nañ ko bàyyi nañ la loolu daal moo ci sama moo ci sama xam moo ci sama taxawaay moo ci sama bu ko defee nag li may ñaan waa daayira Moukhaddamatoul Khidma ñu dimbalee ñu ko ci euh, ci ci ci ñu mën a am ci jeexit yi ndax jeexit yi ndax barab bii kat defe naa moo tegu ci kaw lépp luy itee sëriñ barab bi nga xam ne moom la defar ngir jégul te ngeen kon li nga xam ne ñu koy ñaan waa daayira Muxaddamatul Xidma mooy euh, jeexit yi nga xam ne jóge woon na ci jumaa ji nañ ñu dimbali ngir yàlla nañ ñu dimbali bu bu kër gi noppee ñu jot ci nga xam ne mel na ne yi fi nekkoon bokkul bunt yi ma janoon karo yi fi jëkkoon a nekk bu ma fàttalikoo ay ñaar ñaar la woon yu bu la moo ne yu woon ci yooyu yëpp xëy na am naa yaakaar ne nekk naax saayagul ñu bëggoon luñ ci mën a am ñu am ko ngir bu kër gi noppee ñu def ko ngir xam ne bërëb bi bi ñu door nag melokaan yi la meloon ñu di ca namanti ko loolu lu am la lu solo la te am lu muy def ci noonu kon nag mu wàcce foofu sunu kàddu di ñaan euh, suñu borom nangu jëf ji te barkeel mbooleem liggéey bi yàggal fi suñu Muntaxa yàggal bi ci gannaaw a yi yéene te ko moom di siyaare sama sama sama sëriñ di sama kilifa Cheikh Mamadou xam ne ak yëpp di ko dalal naa ne sax bu teeloon ñoom moom mooy def waxtaan bi noonu dañuy défantu rek xamuñu ci dara wala bokk bu teeloon ñoom sax bu mu gàjjee bokk mu gàjjantewu yàlla dalal fa bi ni bi muy agsi bi ni daan bi bi ñu wàcc kàddu lenn jégg bu baax a baax a baax di dalal suñu mbokk yi tam di leen ahlan wa sahlan fi fi haadal makaan tayyib taahir kaana mawduuna al-yawm waajibunaa tijaaha eh, al-hifaaz ala turaas al-xadiim التراث الإسلامي المريدي الخليجي لأن الإسلام عندما انتشر في المناطق في المناطق أثر وتأثر في بعض الأحوال مثلا في نأخذ على سبيل المثال اللباس في السنغال مختلف في مع ما المعتاد في باكستان مثلا وكل هذا حضارة إسلامية ولكن هناك حضارات إسلامية لكل مكان حضارته الخاصة في الحضارة العامة التي هي الحضارة الإسلامية يعني هناك حضارة إسلامية لها تابع إفريقي هنا وفي آسيا حضارة إسلامية لها طابع آسيوي طابع أندلسية طابع إيرانية أو فارسية وهكذا أهلا وسهلا في مكان في هذا المكان asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëriñ bi. waxtaan bi leer na lool te am solo lool xëy na suñu yokk bu baax a baax. defe naa ne jubluwaay bi nga xam ne moom la ci muqaddimatul xidma daayira bi amoon am na ci loolu suñu jot. te mooy rek fexe ba fàttalanteeg mbokki murid yi euh, solo si nga xam ne. ndonoo am na ko ak warteef yi nga xam ne am nañ ci war koo sàmm yaakaar naa fi ñu ko tàmbalee rek doy na sëkk ci ñu xam ko mooy waxtaanee ko bokk na ci li ñuy sàmmee noonu mooy fexe ba di ko waxtaanee comme ni mu ko def nii moom sëriñ bi ndax euh, plan bi mu jaar mooy fexe ba leeral UNESCO euh, nga xam ne tënk na réew yu bari ci àdduna bi euh, gis-gis bi nga xam ne moom lañu am ci ndono ci ni mu war a demee wutal ko ay nattukaay yoo xam ne juróom-ñett la nga xam ne benn bu ci nekk rek buñ ca tànnee ñooñu mën nañ leen nangul loolu mu mel ne sëriñ bi bi mu koy leeral euh, tudd na juróom-ñett yooyu yëpp te xëy tawféex ji nag mooy day mel ne benn bu ci nekkee rek murid gi am na ci cër bu am solo am na ci wàllu bu am solo te loolu di lu jafe lool ndax ñaare juróom yi mu lim benn bu ci nekk euh, soo demee ci ñenn ñi dañ cay am luñ ci am rek yaa ci des duñ ca am dara te ni nga ko tuddee fii da gis ne benn bu ci nekk ñun am nañ ci lu doy sëkk tàmbalee ko ci euh, turas bii nii wax na ci loo am solo te diine ji ji yenn muy lislaam ji nga xam ne day fexe ba li nga xam ne ay aada la te nga xam ne aada yi bërëb ba lislaam bi wàcc la wala aada yi nit ñi lislaam njëkk wàcc la muy ay naar aada ji da koy berfee jël li nga xam ne mooy diina ji mooy li mënta ñàkk mu indi ko noonu la jaaree ci e, turas ak tabian yi nit ki noonu ak saqaaf yi ñi nga xam ne culturel lay doon mu taxaw ci bu baax a baax e, tudd ci yu bëree bëree bëri yoo xam ne ñun am nañ ko <clears throat> niki noonu it ci lugaw yi nga xam ne ay baat yoo xam ne it ci eh, yoon wi rek nga koy fekk wala boo koo dégg nit ku ko wax da mën a xam ne fii la bàyyi ko wala jeexital na ci ñooñ fii niki noonu eh, ilmiya nga xam ne am nañ ay ixtiraat ilmiya ñoo xam ne ci yoon wi lañ bokk seen lépp di ci yoon wi ba noppi ñi am yuñ créé yoo xamante se ni ci xam-xam lay dugg bu baax a baax a baax àdduna soxla ko bu baax a baax misaal bi ci joxe ci Serigne Mbacke Bousso ak eh, njabootam ba ci waa NASA bi ñu soxlaa dara loo xamante ni day évaluer seen ay gëstu yi fi lañ ñëwoon ni ki noonu trace adabiya tàmbalee ko ci mbindum sëñ bi ci jëmmam ak tamit mag ñi nga xam ne nekkoon nañ fi doon way làkk wolof sëñ Moussa Ka suñ Mbay Jaxate suñ Sàmm Jaar Mbay tudd na ci ñu bëri suñ Mokeer ak ñooñ noonu ak xadaar yi euh, ak champs bi nga xam ne yëpp daanaka ci mujj gi ni mu ko indee dañuy duggante nga xam ne euh, muy col gi colka gi ak euh, nga xam ne foo ko solee dañuy mën a xam fi nga bokk mën a xam fi nga dëkk te teewut mu fekk si bëgg-bëggu lislaam ci euh, objectif yi mu joxe woon ci ñu tax ñuy solo mën a col col gu jot goo xam ne day mu euh, mbooleem yaramu nit ki waaye nag am tabian boo xam ne murid yi lay doon ba ku la gis xam ne kat ci ñooñ Cheikhul Khadim nga bokk nit noonu xasida yi daaj yi ci am ak yëkkati yëpp yaatal na ko loolu dañuy bañ buñ gënee dugg lëntal ko wax dëgg waxtaan yi am na solo ñu ngi santaat bu baax mu tëjee ko nag ci warteef yi nga xam ne moom la ñu am ci sàmm ko bokk na ci yi mu proposé ginnaaw bu ñu amee daari kaamil am daari alquran am daari xasida ñu am bërëb boo xam ne dañ fay sàmm li nga xam ne ay jeexit lañu yu bàyyi ko ci sëriñ bi te am ko ñu ñu ko fay dugal tàmbale ko ci amoon ci jumaat ci njëlbeen ak euh, mboolem li nga xam ne mën nañ caa jote te mu te muy delluwaat ci yoon wi ci fàttali moom Serigne Cherif moom Cheikh Mamadou Fadal moo doon defal waxtaan yi moom la ñu joxit muy taxawu ci ndigal Cheikh Mouhamadul Muntaka bërëb bee nga xam ne lu mel lii nañ ko jagleel ni ñu mën a def ba sàmm ndono li nga xam ne jëlee nañ ko ci sëriñ bi ci yoo xam ne matériel la wutal ko musée bu ñu koy def kon ñu ngi sant bu baax sëriñ bi di ñaan suñu borom gën leen a yàggal te dolli leen ak weer mbooleem projet yi ngeen am ak naal yi ngeen eggale ko ci barke sëriñ Tuubaa ñoo euh, ko noonu la daayira bi di sante bu baax mbooleem ñi nga xam ne ñoo ko doon topp di ziar suñu kilifa yi nga xam ne teewee nañ jotaay bi sëriñ Mouhamed Xaban moom Cheikh Mamadou Fadal ak mbooleem ñi nga xam ne ànd na ak ñoom ak ñi nga xam ne doon nañ ñu topp ci jaare ko ci eh, xarale yi yees yi ak ci télé yi ak rajo yi di ci tudd lu mel ne MK TV di eh, télé bu jumaa ji ni ki noonu Lamfal TV ak mbooleem rajo ak télé yi nga xam ne dañ koy jàllale euh, waxtaanu suba wi waxtaan day wéy di continuer ci weer wi comme ni ñu ko xamee bu suba insha allah ki koy def mooy Serigne Ibrahima Kebe war a waxtaanee zakatul fitre wa salaatul iidayni ahkam wa adab maanaam euh, murum koor azakay murum koor ak jullig ñaari feet yi muy ak korite waaye it teggin yi nga xam ne moo ci am ak atte yi nga xam ne moom lañ ci suñu borom euh, gàll la waxtaanee suba ak jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.